bi muy jël réew mi dafa am ay pàcc yoo xam ne dafa ne woon lii la fas yéene jagleel askan bi pàcc yi nag bëri na waaye am na ci ñaari pàcc yoo xam ne dafa ko yitteel lool benn bi mooy bëgg na bépp région boo xam ne yaa ngi ci biir réew mi rek mu mën a am équité maanaam lii am dakaar am Thiès mu ñu mën ko fekk Tamba ñu mën ko fekk Kédougou ñu mën ko fekk feneen loolu benn mbir la mais aussi bëggoon na li nga xam ne mooy inclusion sociale ou financière maanaam nit ñi nekk dëkk ci réew mi di yëg politique yi nga xam ne état bi mi ngi koy def nit ñooñu aussi yëg ci seen bopp bu ba tax na tey bu ñu ñëwee mu am ay mutuelle yoo xam ne donte ay mutuelle de santé lañ ñoom sentir nañ yéeg leen seen bopp ne politique yi nga xam ne njiit réew mi mi ngi koy def jagleel leen ko ñu ngi ciy yéeg seen bopp ñu ngi ciy gis seen bopp ba ne décidé de dañ koy sargal loolu dañ koy rafet rafetlu day wane ne euh, fii président Macky Sall tegu yoon bi mu tegu noonu la kon li ñu war ñun ñii di ay ndawam te mu wax ñu ko moo xam ministre ba Diattara bi nga xam ne ñoo fi ànd tey moo xam suñu collègue aussi docteur Amadou Ndiaye bi nga xam ne ñun ñoo ñëw wuy si euh, mutuelle régionale des femmes mutualistes nga xam ne soxna Penda Anta Anta Mbaye moo ko jiite nekk na lu ñu ne euh, décidé nañ nekk seen wet parce que ci secteur u économie sociale et solidaire dafa am pàcc bu am solo boo xam ne mutuelle yi lañ ko jagleel loolu nag am na liggéey bu yaatu buñ ci war a def dinañ ci àndandoor def ko mais déjà dinañ leen jox subvention fanweeri million boo xam ne dinañ ko jox juróom ñett fukk ak juróom-ñeent mutuelle yi nga xam ne ñoo ne diggante Thiès mbuur ak Tivaouane ngir gën leen mën a dooleel ci mutation bi nga xam ne bëgg nañ mu euh, xotti romb santé bi dem aussi si euh, mutualité sociale nga xam ne loolu dafay nekk un pas ci développement sociale mais également épanouissement